rafetlu ko di sant bu baax sunu boroom subhaanahu wa di sant le président Macky Sall ci kóolute bi nga xamante ne am na ko ci ñun ba jox ñu bi ndomb tànk pour ñu nga xamante ne ñu mën a liggéeyal askan wi ndax li ëpp solo ci doom ci dëkk moom mooy nga am kàttan ak xel boo xam ne de war nga mën a liggéeyal tey askan wi tey suñu ko président Macky Sall joxe boobu cër ñun du dul sant ko di ko di wax nag ne ñun dinañu def suñu kem kàttan loolu nga xamante ne teg na ko suñu loxo yàlla defal ñu ci ndam loolu nag dañuy sàkku ñaan sàkku tamit ñëpp jàppale ñu ci ba ñi nga xamante ne lépp lu ci président bëgg yàlla defal ñu ko ci. artisanat artisan yi ñoom toujours dañuy nekk di wax rek naan ñu leen jàppale ñu leen ndax pour jàppale leen ci nga xam ne maanaam ñun fi mu ne nii dooraguñu mbir mi ndax defaguñu passation de service waaye ci lu leer sunuy bunt dinañ ko ubbi sunuy nopp duñ ko fatt te dinañ jege askan wi dinañu xam. docteur lañu maanaam xam nañu luy xamee jàngoro suñu xamee jàngoro tamit war nañoo mën a xalaat nan lañ koy saafara waaye nag comme jotaguñu kayit yeeg yoon wi yeeg yëpp yi ñu war a jël suñ ci jotee rek incha allah après dinañ si waxtaan ak yéen ci lu gën a yaatu. Euh, li nga xam ne moom mooy gàmm gi nga xam ne ñoo ñu fi ren di fas yéene magal guddi rasulullah alayhi salaam mu tombeeg li nga xam ne moom mooy jafe-jafe euh, bi am mooy feebar bi ñu nekk. lan ngeen yéen nga xam ne yéen la yàlla maanaam euh, di sant le président de la république ci ay jéego yi nga xam ne daf koo teg ba nga xamante ne tey Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ci àddina bi yëpp. def nañu ci ay jéego yu am solo ndaxte ba ñuy door mbir mi ak fi mu toll fii loolu lépp ci xarañte ak euh, vision président décision yu ñu war a jël ci moment bu nekk bu ñu ko waree jël moyens yi ñu ci war a def yëpp ñu def ko ci ak ñaanu tamit ñi nga xamante ne ñoo ci dikk bi ba macha allah waxuma ne yëf yi deñ na mais fii mu toll nii ak fa mu toll woon dootul benn na ñëpp continuer gën a takku gën a laxasaayu ba lii nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy def ñu dem ba mbir mi jóge fi te incha allah yàlla mën nañu ko defal te suñu ko defalee tamit muy suñu ndam. kàddu gu di sant di sant di sàkku ci sëriñ bi ñaan di sant tamit di sàkku tamit ci sénégalais yëpp ñu xamante ne président benn yéene la am moom mooy defaral askan wi ñëpp nag waaye tamit xaw a taaxirlu ndaxte àddina sottewul ci benn bës nit ñi incha allah dinañ góorgóorlu am na pas-pas ci jàppale xale yi am na pas-pas ci jàppale jigéen ñi te incha allah jox nañu ci jox nañu ci jox nañu ci ay euh, tegtal ba ñu dem ci c'est docteur Papa Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat et de la transformation institutionnelle merci.